lu tax ñewuñu moy mooy moom am solo loolu lañu war waxtani parce que dialogue yi am yépp ñëwoon nañ pourquoi la défiance bi ñu manifester pourquoi le doute bi ñu manifester ba tax tey ñewuñu man rek ma ñew ci Yewwi Askan Wi fekkee et j'assume ça pourquoi monsieur président loolu lañu war réfléchir parce que du guleet ñu dialogue du guleet ñu toog di wax daan na ñëw ñëwuñu ñu bari liñ lay wax mooy dara beesu fi dara bees y a aucun sujet nouveau bu fi bees ñu ngi ci dialogue bi depuis toujours ñeent ak juróomi problème yi nga xam ni moom moo amal solo moo ñu amal solo dañ ko waxtaane waxtaane waat ko waxtaane waat ko te amul solution motax ñu bari ci ñom ni ma ñun duñu dem man leen deet waxtaan nak mom du am tayi du am sonn da ngay waxtaan rek di waxtaan rek di ngeen juboo ñun loolu lañu gëm motax ñu ñew fi monsieur le président la question du troisième mandat du lu il faut que ñu waxtaane ko il faut que ñu waxtaane ko mënul ñak que ñepp bok ci élection bi mënul ñak ñepp bok là que parrainage bi nga xamné problème le fi de indi dissension il faut que ñu waxtane ko mënul ñak li mënul ñak aussi moy les modifications des articles 57 29 30 et autres nous ko bañ waxtane parce que problème là li mënul ñak moy ñi nekk ci kasso yi presque 500 personnes ay politiques et ay journalistes mënul ñak parce que nag xam nga réew mi su fekkee dañ ko bëgg a doxal il faut que ñu bañ ragal di waxante dëgg suñ nango waxante dëgg rek danañ avancer fii li am solo mooy en tout cas ñun suñu teewaay dañu ñëw pour liggéey pour waxtaan pour juboo pour réew mi jëm kanam parce qu'il faut que nous rassurions ce pays il faut que nous réconfortions les populations il faut que chacun comprenne que réew mi kenn moomu ko